What up, guys? What up, guys? What's up, everybody? Sama gars. yéen di bëggee ñëpp di bëggee ñëpp sama guy. yi ça fait un bail vidéo Wow, tiba. vois après élection yi ba léegi waaw nekkoon ci tey xaw kii rek tu vois mais maa ngi bëggee euh, sama sujet ma ñëw ci euh, sama sponsor officiel di 77 515 15 16 Saan 515 15 16 tey nag dama ñëw wax ci euh, vidéo short vidéo ah ci Gabriel Kane Pape mooy yooyu noonu rek bettul kenn comme ni ko ñëpp di waxee quoi bon li may ñëwee mooy Gabriel Kane dafa maye 62 millions la maye fële la joxe Touba pour aide affaire kii euh, soins médicaux affaire yooyu noonu quoi tu vois. ma la la première euh, la la première question qui m'est venue à à l'esprit mooy maanaam tey jii fa la war a jëlee 62 millions Gabriel Kane la la war a liggéey boo war 62 millions yu muy maye wala féminisme day day fayee noonu. on te ma dem défendre ne nekk homiste xaw ma nu koy waxee noonu tu vois mais loolu méttiwul ma li ma métti mooy maanaam tey jii. image bi ñu utilisé si Touba quoi tu parce que tey ji dalay wóor ne euh, xalif général bi moom moom yëgul du yëgli du yëgul tinu lu muy am mooy dem programme day mel ni Macky Sall bu xëy rek ñu ne war nga recevoir lii xalif général bi tey di xëy tey ji ñu ne war nga recevoir benn jigéen boo xamante ni ji dafa jël 62 millions bëgg ko may waa euh, dispensaire naa nga mbala kii donc mu ne loolu lu baax la parce que ku ñëw sa gox tamit ne am na ah, euh, ah, ko En sëñ bi ñoo tu vois ñoom ñoo koy à des fins personnelles quoi tu vois parce que tey jii le ñu yeggoon si kat mi qui bi qui ay euh, de respect di kilifa leen respect système bi en place ils sont de de mèche gëm mais ñun ñi ñi ko ñi ko wër ñoo koy kii gisoo ñu koy présenté naan soxna soxna Gabriel moo def li soxna sëriñ bi xamul soxna Gabriel xamul soxna Michael yooyu yëpp xamu ci dara li ñu ko présenté mooy lan am na kuy ñëw di maye di ak lii li yëpp si système bi la quoi tu vois pour déjouer gars yi tamit élection yi pour ñu bañ a wax ci affaire assemblée yi ñu focus ci côté boobu noonu pour blanchir argent kenn xamul mais man Gabriel kan fu mu la jëlee vraiment man loolu man man man man jaaxal na ma jomal na ma trop trop trop trop waaw léegi beneen may ñëw muy maanaam di Pape Diop Euh, suñu père Pape Diop bon man fi may waxee ci élection yi parce que bu ñu kii élection yi ba léegi waxuma ci mooy maanaam tey jii élection yi euh, li may wax Ousmane Sonko mooy maanaam tey jii grand ouse gat sa gat sa boobu nga doon def homme violent boobu bu ko bàyyi je te jure su fekkee ay urne urne urne par la voix des urnes lañ yaakaar pour Sonko falu Sonko du falu parce que tey jii lii dafa yomb quoi tey jii bu dee parrainage ñoom dañuy réussir par seen i parrain bu dee élection dafa am defal nañ seen résultat préfabriqué ne dañuy def 83 wala 82 parce que opposition bi mooy gagné mais bu amee benn benn benn gab bi rek day flagrant am nañ avalu Pape Diop am nañ avalu ñeneen ak ñeneen am nañ suñu yu tóob donc nañ def lii bu équilibré nii lay demee ba 2024 tamit noonu lay demee man tey Macky Sall bokk naa si ñoo xam tey jii Macky bu doon day def troisième mandat dama koy gëm parce que tey jii dañu nekk si benn dëkk boo xamante tey jii maanaam la population jaaraama population sénégalaise gars yi voté la population moom yeewu nañ tu la population elle est

kenn vous leen yàqal loolu noonu influenceur yi fi ne waja ji waja jaa may leen kenn leen yàqal loolu donc le système vous Sonko doon wax loolu ça nous rattrape dañuy rattraper toujours et tant que ce système est là wallahi système les cinq singes système dem si ci ci la dem parce que rek du parce que ñi ci ñi contre les intérêts français dañuy ñu dul fay impôt dañu xeex Sonko mara yi dañu xeex so dañu xeex Sonko toog mooy dox ñi nga xam ne dañuy toog liggéey ñu defuñu dara dunguru Sénégal léegi boo nekkul dunguru boo ko si système bi nekkoo traître comme Pape Diop doo doo neex la da ngay liggéey ba dee ñu la jàmbaar la woon daw na ba dee si si yoon bi donc Sonko bul mu a jógee ci loolu kii bul bañ ñu naan rebelle laa nitu firnde la ba ba nga def ko parce que loolu rek mën a jàll fi nii la population a compris ñoom Macky Sall benn système boo xam ne tey jii ay urne ay civisme ay dégg ndigal loolu du fi mayee dara loolu du fi mayee dara tey jii may ak système bi Macky Sall teg nii parce que mooy ma ne toujours suma gars yi bu ñu naan man Macky Sall day def troisième mandat wala def troisième mandat man leen saa waay Macky Sall day def troisième mandat ñu lu tax foo ko teg ma leen parce ñi ngeen ba Macky euh, Ouattara ñoo ngeen ba Macky Sall te ñooñu ñoom dañu naan si c' est possible en Côte d'Ivoire c' est possible au Sénégal parce ñooñu dañu naan tey Après, on a réussi à installer Ouattara. Depuis le Sénégal, c'est un pays stable. Donc, pourquoi, pourquoi, pourquoi là-bas et pourquoi pas ici Donc, on a dit que les filles peuvent faire. Tu vois te xam nañ pion yi parce que tey jii Macky Sall dafa ñëw ba defar napp population sénégalaise mooy lan chacun a un prix jàpp na fii gars yi nekk fii yor yenn kii yi ñëpp am nañu prix bu ñu leen jëndee beneen bi mooy lan sénégalais dafa ragal dee sénégalais bi day mbaw rek mais du màtte mën nañ mbaw nii te loolu li koy may li may Macky Sall fit mooy maanaam tey jii ci affaire parrainage yi le 22 bi passé yow noonu du du gars yi du ñu bokk du bokk gars na waaw bokkuñu Sonko du bokk nii ak nii tu bu ñëwee si élection yi nii gars yi sàcc ko ñu ñëw teg seen résultat préfabriqué kenn du yëngal donc moom jàpp na ne moom dafa napp sénégalais yi mars bële dafa jàppoon ne benn benn benn détail ko échappé la rek mu kii nii mais moom dafa jàpp ne sénégalais yi ñii xamante ñoo nekk si kaw si kaw war a aar population bi ay jaam lañu uso un prix mais ñi si suuf tamit ñoom ñoo yëngal ñoom ñu yëngal dañuy wax ni seen biir nekk rek mais duñu wàcc duñu yëngal du def dara te man loolu bu amee du ma bett parce que mi ngi teg pion yi mi ngi teg pion yi pour pour def ko man li may wax daal mooy maanaam Sonko fi nga nekkoon bul bañ ku la ku la dénigré bul bañ la ko parce que Sénégalais yi boo rek moo la ci mën a génn parce que boo yaakaaree affaire yooyu urne non dee na boo yaakaaree tey ji maanaam ñi nekk ci kaw ñi def seen temps ñu mel ne ay Pape Diop ak ñeneen def seen temps ba mu dee ñu waroon xaar xaar xaar xale yi ñoom ñëw di rejoindre la dégg nga dellu dellul mbuum sa mbooy mbooy ga tënalal discours bu def ak lépp bi may tëjee mooy maanaam Pape Alé Niang nee na tey ji maanaam euh, Sonko dañ ko war a jàpp septembre loolu moom waxin dof laay wax man loolu la day jàpp Sonko parce que man ay vote affaire ko ñem na ko ci présidentielle ñem na ko fii bu ñu defaatee troisième mandat man li ma yàlla na la seytaane jay la sitana jey Macky Sall la sitana jey ba nga japp sonko bu wana na gëm ni sonko dina falu ay eh, bu ba yu ma fuñ ko fago di gis do musul gis ma lool lay ñaan Macky Sall yalna la yalla jey ba nga dem da ngay japp sonko ma lool la la ñaan yalna la yalla jey parce que bu di urni sax mën nga jël say say say gaay conseil constitutionnel accaparer RTS wax sen résultat ngeen gën la ngeen dé média ñu na jarof ngeen tok mana buy intervenir waaye bés boo laalee sënkoo ah di nga gis ay vague yoo xam ne intifada bu mënta gis di nga gis intifada bu mënta dama ñaan loolu Macky Sall yàlla na la yàlla dimbali rek wala seytaane jay la rek ba nga da ngay jàpp Sonko parce que man sama espoir foofu laa ko fa laa ko yaakaar léegi nag sama espoir fa laa ko yaakaar ndax man man saa am am nay taalibe yi te taalibe yi taalibe yooyu duñu ma décevoir fa laa ko yaakaar de troisième mandat bu la neexee sax bokkal man troisième mandat Macky Sall bu la neexee sax bokkal je valide bokkal defal lu la neex mais man leen na laay wax di ko ñaan di ko julli mooy Macky Sall yàlla na la yàlla jay ba nga laal Sonko man loolu laa la ñaan Papa Alé Niang message boobu laay wax loolu du menacé loolu ngëneel la suñun ngëneel nga laal Sonko loolu ngëneel la suñun parce que ñun foofu la foofu la gëm naa ne fa la yàlla di jaarale fa la ñu yàlla bëgg fa la ñuy yàlla dimbalee pour ñu mën a maan tey ji yeewu Sénégal fa la ñu yàlla mën a dimbalee pour nga jóge fi mais a yor loolu yëpp système bi tant que mi ngi di di waaj naan naa dem de laa man sama gars yi du leen ko sama kanam gi ñaaw génn ma la coono loolu bëggee